yow mënoo gis xale boo xam ne il a treize ans il n'a même pas quatorze ans nga dóor ko bal si bopp tête a bout portant moi je suis ancien militaire xam naa luy bal xam naa lu bout portant xam naa ko nga koy évacuer jox ko un gardien de morgue un gardien de morgue boo xam ne perfusion bi dañ na mënu ko sax monter sama petit frère yi di jëngu si kawam un gardien de morgue mooy xale bi demal dee c'est la signification loolu mooy signification bi nga dem hôpital chaque jour ñu lay jox ordinance quarante quarante cinq mille chaque jour dee dee xam nañ ko xaalis boobu chaque jour te ordonnance bu ñu ma présenté yàlla suutaral ma ma jënd ko dernier ordinance bi sax dama ko jënd quarante cinq mille quelque ma ñëw fii pour wuti xaalis crédit mutuel ak wuti prise en charge le matin sama raka bi woo ma yaayam dégg ko bugg jooy ma leen sant leen yàlla jóg leen ngeen julli parce que heure boobu heure fajar la loolu neexuma boobu lu ko dal moom ndogal yàlla la kenn mënu si dara mais la manière nuñ ko évacuer affaire bi deñ sama beneen rakk bi dafa xotti mbubam di takk boppu booy bi le gosse a saigné de Bignona à Ziguinchor de Bignona à Ziguinchor le gosse a saigné un gardien de morgue ngay jox kooku pour mu évacuer malade est-ce c'est raisonnable est-ce que c'est humain injustice boobu booy bi si lu mu dee moom lañ ko wonaat encore man loolu lay wax lu may am loolu moo ma métti loolu daf ma métti laal bu ñu ko laal nii métti na ma mais yooyu c'est naturel ndogal yàlla la kenn mënu si dara mais loolu war la mun a am. fu mu oto bi fu muy dem di dang dang lu ñu ko perfusion mu deñ affaire bu ñu defoon si bopp bi mu deñ gardien de morgue mun na ko def mooy waaw mourir dem naa ba jàkkaarloo ak médecin Ziguinchor bi moo wax ko ko le médecin nu mu tudd xaw ma turam mais moom moo newoon kii. Euh, urgence non du urgence waaw service du maanaam. réanimation. vendredi samedi dimanche. lundi chaque jour maa ngi jënd ordonnance ay quarante quarante cinq mille di def ay ay analyse ñu ñu ñu ne amuñu deret pour xale bi j'ai appelé mes parents ils ont quitté partout Marsassoum Diouloulou Bignona ñu ñëw pour don de sang Ziguinchor pour don de sang xale boobu ba faa mu nekk si banque de sang bi mu ne doy na moom dafa sonn kon les gens ont tout fait ils ont tout fait maa ngi leen di ñooñu maa ngi leen di gërëm di leen sant yow maa ngi lay gërëm di lay sant su neexee yàlla yàlla dina la jàppale waaw loolu rek laa am lu may wax le moom c'est la vie destin aw ma si benn problème sans regret voilà c'est merci ok man dama dem ba ne est-ce que la sax celui ba ma ñëw pour yëgal ni yaa ngi ñëw moom ma dalal mu ne ma lii ñu ñoo bokk-bokk donc c'est un kilifa bu responsable un per de famille bu delloo yëf yi ci yàlla yàlla tamit ñun ñëpp ñu mel ni moom lépp lu ñu koy ñaanal fii yàlla mu egg fa waaw en tout cas j'étais très fier de lui hier. je si hôpital bi ñu suñu suñu gëmul loolu. bi benn rajo kii moo fi nekk FM Awaña nañu jël FM Awaña ñu ne leen. débat bi tey c'est sur le fonctionnement de l'hôpital de Bignona ñu ñuy déglu population bi ils entendront du tout musu du ñu évacuer fii nit jox ko ak infirmier spécialiste moop gardien de morgue planton këriñ këriñ seen yoon new si xam loolu injustice boobu xale loolu la ñuy xeex bi dee te loolu mooy daw ba léegi loolu mooy daw ba léegi maa lay mm. neexee ma jël si la fii mm. enregistré jàllale ko dañ cee sonn j'ai tout fait pour euh, Ahmed Aïdara pour jot ko wax ko lu ma métti mu jàllale ko jox nañ may numéro may woo muy sonné sonné kenn décroché wu après ñu ne ma kii dee ñëw noo xam naa dama koy suivre chaque fois chaque matin dama koy revue de presse am ak kii bi yëpp dama koy suivre ak kii ñu muy dimbale ñëpp dama koy suivre mm. dama koy suivre chaque jour jërëjëf ah. eh, maa ngi lay dalal waaw di la massaw eh, su fekkoon ne su fekkoon ne trajet bi ma def jóge Dakar ñëw fii Bignona bu doonoon déglu sa kàddu bi rekk la mm. jaral na ma ko parce que bi ma la déggee nga wax euh, j'ai été touché au plus profondement de moi et ça veut dire tout simplement il y une injustice boo xam ne ñun dañ ko doon xeex muy injustice ci wàllu démocratie dama bëgg rebondir ci sa kàddu yi ñu xam ne injustice bi du ci démocratie rek parce que bëgg faju amuloo faju bu doy injustice la bëgg tekki mënuloo tekki injustice la bëgg dimbali sa wayjur mënuloo ko injustice la bëgg taxawu sa réew mënuloo ko injustice la et ce cri du cœur ne sera pas vain yaa ngi wax waxu médecin ñaata médecin la ñu am Sénégal 2000 médecins pour 17 million de sénégal ñaata infirmier le système de santé au Sénégal ku ne xam na ne baaxul ku ne xam na ne jagul 1960 ba léegi lan lañ ci jéem xam nga li nga wax noonu bu doonoon doomu doomu borom barke du demee noonu parce que ñoom ñi jiite. ñu ngi xool nu ñuy taxawoo seeni doom ak nu ñu leen di téye ci wàllu santé mais ñi nekk ci suuf kenn bàyyiwu leen xel li ngay jooy ci hôpital bu na moom la dëkk yu bari ci Sénégal di jooy moo tax je lance un appel à toute la classe politique à ces mouvements citoyens qui sont en train de se battre pour la démocratie. Certes, elle est extrêmement importante. Certes, l'instauration et le respect d'un état de droit, c'est primordial pour une vie démocratique normal Mais nous avons une injustice qui injustice yooyu moo tax ku mel ni suma sœur docteur Gnima lu ñu ko joxoon tey mu tekki ndomba tànkam parce que bëggul gis ñuy jaar ci kaw yi néew ci réew mi te dara waralu ko ñenn defuñu ko lu may kàddu gi nga wax ay nit ñoom ñoo def de manière délibérée dal ci kaw ay xale xam nga ne 13 ans 13 ans un enfant de 13 ans abattu à bout portant loolu ku ci waxul c'est parce que nekkuloo tey ci palaasu papa yi Bounama Sylla Sagna nekk loo ci place yaayam ji nga xam ne ku xool kanamam gi xam ne tey am na lu ko metti jàppal ne daal seen mbokk seen doom seen jarbaat moo sol dàllam ñëw ci yéen ngir masawu leen waaye di la xamal ne bu naa Bounama Sylla Sagna mi dem du yéen rek la demal Sénégal ci boppam ñoo am lu leen metti ni ma solee sama dàll ñëw fii mm. li ma wóor mooy sénégalais bu ko mënoon ku ci ne mm. dana sol dàllam ñëw fii masawu leen mm. donte mënul wàññi mënul koo dellu si moom waaye mën naa wàññi mën na leen a defal di ñaan suñu boroom dolli leen xolu muñ di ñaan suñu borom teeru ko ci aljana yi gën a kawe parce que kii ku ne xam na ne moomin la imam 13 mm-hmm. ans kii xamul dara ci àdduna kon bir nañu ne ñun bir nañu ne aljana moom mooy këram yàlla na ko yàlla ubbil bunt yooyu ba moom mu toog fa xaar leen yéen ba ngeen ñëw lii daal mooy tànk yi moo tax ñu jóge dakaar ñëw pour masawu leen ñëw ci yéen wan leen ne bokk nañu ak yéen tiis bi ngi leen di sant bu baax a baax a baax di ñaan suñu borom Euh, jox leen xolu muñ jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci merci président voilà